gi nga xam ni moom moo yëngutu ci wàllug euh, téléphonie ak digganteem ak consommateur yi naam su fekkee ni euh, ñii di waa Orange daal di nañuy joyanti seen offre ya nga xam ni moom la ñu yëkkati woon jëm ci wàllu Illimix bi euh, ba tey directeur bu ARP daal di koy xamle ñoom ñii di consommateur di di way càkkuteef yi nii ba léegi daal ñoom mbetteel lañu am ci li nga xam ni moom la Orange yi yëkkati rawatina ñii di rassemblement abonné yu Orange Free Expresso ak Promoville nee nañu mbetteel lañ ci am ña nga xam ni ñoom ñu doon yëngutu ci wàllu ko plateforme yi tamit euh, bu ñu sukkandikoo ci kàddug Jali Badiane mi leen di jiite ñu ni seenub xeex daañu ko wéyal jomaroon kuréel yi xeex ngir orange delloo ca gannaaw mbetteel la ñu am gannaaw bi nga xamante ne ki de directeur général bu ARTP Abdouli ege na askan wi offre yu bees yi nga xamante ne moom la orange daal di indi kuréel gi di raw fépp mooy abonné orange free expresso promobile li ñu gis mooy hors sujet la ARTP def damboj vraiment dañu am xol bu naqari li ñu doon xaar du loolu li ñuy xaar ci ñoom weesu li ñuy def ci yeneen réew yu mel ni France ñu def ko fii Sénégal la sàkkal ak di la nattal waxtu yooyu woote boo xasee jënd Illimix benn fan fan bi yëpp ci bis bi da war am droit di woote di connecté di envoyé SMS ak MMS su fekkente ne da jënd ayu bis bi yëpp da war am droit di woote ak di connecté wu c'est la même bu fekkee da jënd weer. Orange xoolaat tarif Illimix mu jëlee ko ca quatre mille neuf cent indi ko ci deux mille deux cent ak juróom fukki minutes yoo xam ne mën nga ci woote offre bi nga xamante ne moo nekkoon sept mille cent mu indi ko ca cinq cent ak ñetti giga activiste bi di Jali lu muy xaar ci Orange. mooy mu indiwaat tarif yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon lu ñu ñaawlu mooy que dafa jaaduwul régulateur bi moom ci boppam di présenter ay offre opérateur mais bu ñu ci loolu la ñuy nekk toujours di xaar contenu offre yooyu parce que dañ ko wax vaguement ni mais contenu bi lan la exactement te il faut ñu fàttali ARTP Orange ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi suivre mouvement bi que ñu doon ñaan li ñu bëgg Orange def ko mooy que pass illimité yu njëkk yi ñu dellu si loolu lañ leen doon wax waxuñu leen ñu proposer ñu offre yu bees ñu nekk di négocier de bi mënagul jeex parce que li ñuy wax client responsable moo nekk mouvement bi ñuy lancé Sonatel orange ci kaddu bi nga xamante ne bàyyeekoo na ca direction bu communication ne ne dafay xaar rek ARTP daal di rek dëggal proposition offre yooyu nga xamante ne moom la def ngir mu tàmbalee doxal. tarif yu bees yi waaye njiitum communication orange xam na ne bëggul àddu ci mbir mi ndax day indi coow